fu mu toog euh, dafa tàmm di défendre ki nga xamante ni Ousmane Sonko ni mbir bi ab complot la et que duñu seetaan mbir mi di sooxe donc ab ab audio nag bu fuité euh, ci moom ñu dégg ci yeneen kàddu yi nga xam ne dafay contrecarrer euh, position bu mu yàgg am ci bi lépp dossier dem sax ba méngale ki Ousmane Sonko ak président Barrow bu Gambie ni amul xam-xam. xam nga man sama sama position de tout temps. man dama jàng li may def ak li may dund ak li may xam bi ñu waxee maak moom dañoo wax li ñu wax. Mm. man nit ma tontu li ma tontu. Mm-hmm. gis nga moo tax man audio fiuteem yooyu man ça m'intéresse pas du ma ko sax déglu à la limite parce que xamul ndax du ma déglu audio yooyu ah. Mm-hmm. parce que man aussi sa sama façon dund man dama am benn comportement bu muy dundee quoi c'est-à-dire man man. Mm-hmm. damay bëgg bëgg bañ bañ man mooy sama dund dama am kóllëre dañ ma ci yar. je suis un noble je je je pas à des kii de basse-cour de tout temps. am na na ñu ne am na nag ñu ne Cheikh Bara mi eh, da daalaal laalaake nag wala tooñee ci laay mbiram su lekk. waaw mais yàlla yàlla wala loolu coïncidence la rek. yàlla moom moo xam lu nëbb ak lu feeñ. Hmm. man l'essentiel li may wax naa ko wax bu ma toll. Hmm. man def naa trente cinq ans de gendarmerie musuma jël mille francs nit lekk ko moom daal aar naa sama bopp ci li yàlla di tere léegi nag loolu laay ñaan yàlla aar ma ci man it ma faatu. am naa doom yu nekk homme de tenue loolu laa ko xelal du ko jël mukk bay faatu ba génn gendarmerie fu mu toll dana def liggéeyam dana respecté ay chef am dana lekk lu lew ndax man sama papa était grade de la police moo ne ma woon foo toll ci àdduna bàyyi bu lekk ak bu lor doomi aadama man fi ma dëkk xam nañ ma HLM Grand laa am kër Guinguinéo laa juddoo Mbacké laa màggee j'étais dans la gendarmerie j'ai fait trente cinq ans trente six ans armée gendarmerie tout li ma jàng xam naa ko musuma lor doomu aadama mais xam-xam bi am ci gendarmerie ak ci wàllub euh, euh, ci militaire ak yooyu comme ni waxee léegi ci ci ci wàllub euh, ñi nga xamante ni les hommes de tenue ban gis-gis nga am ci bi lépp audio parce que nag major il faut que ñu wax. non audio bi du ma nga du ma ci wax li ñu jotee non attendez madame authentique ma ci wax dañoo jote comme moom dañoo jotee woon ba échanger ay paroles man man Alioune Kandji danaa wane man li ma ma doon dalaa fexe ba sàmm ko fu ma toll man loolu ma intéressé fi mu ne parce que même li ma ci tontu sax dañ ma ci yedd. non mooy dafa mel a ngi gëtoon après ma fekk man may ragal. ah mais oh, à dire. madame je suis ah. par tout ce que j'ai fait avec ces donc je ne je ne je ne plus ça parce que man sama dimension dafa romb sama dimension dafa romb sax li ma rek la ñoom mais ñoom li ñu defoon man li may wax démb laay wax tey li li may wax mu jóge ci fi mu jóge ñu wax ma ko l'essentiel man danaa ko toppal sama bopp. fan la jóge dafa am ñu la ñaan. non non non du question ñaan tu n'as pas may waxee de. Mm. dama ne comme yàlla suñu borom moo ñu sàkk. te man waxuma imaam Ndaw jaana ko mat ñu complot ay wax di ma ko jéem a tudd di wax mais dama koy toppante ñu ko wax point barre fa laay yem danaa ko toppanteeg ñoom jeex na dama koy toppanteeg ñi ko wax. d'accord mais ba tey léegi non li nga wax affaire journaliste mais dama mm, mm. dama koy toppanteeg ñi ma ko wax l'essentiel mbir boo ko bàyyi ak suñu borom suñu borom dana ko lijjanti mais ci wàllu audio yi mais ci wàllu dafa tàmm euh, dafa commencé fës euh, tàmbali également di yàq langum politique bi mhm. maintenant euh, boo ne ñoo ko ñaare ñu génne ab audio waaw cest xam nga audio en droit boo gisee sax man sama qualité parce que man je connais a travailler sur sur mes qualités c'est-à-dire li ma jàng ak mën ko te dama ko mën te maa ngi koy liggéey maa ngi koy liggéey ba bitim réew maa ngi liggéey ba tey ba bitim avec des des étrangers des institutions étrangères je dis pas étrangers institutions étrangères et sous-régionales dans ce que je sais faire maa ngi ciy liggéey ak ñoom ci loolu donc man du ma fi nekk di wax naan di audio bi moom laak du moom du sama rôle parce que en informatique les preuves doivent faire l'objet d'une expertise. non man génn naa ci loolu ba nga dama lay expliqué dama dimension man romb na ko. waaw man kilifa dama may doomi muskalaf yoo xam ne dañoo tekki di liggéey nekk ay exemple déjà mes enfants c'est des exemples. donc man xam naa li ma doon ak li ma mën donc et puis yàlla li ci kanam rawu li bët bon di cela dit affaire ojo dans le monde où ku nekk na jéem a honnête bañ a wax lu ëpp. mooy dëgg gi aussi. Mm. c'est-à-dire le problème est très simple mais bul wax lu ëpp bul wax lu safaanu. bul laal kenn bul lor nit bul kompolo nit di ko yàqal bul toroxal jigéen pour mu lamb <laughs> tu comprends xam nga yow tey rek ma toog fi ci télé bi mu neex ba rek ma ne la waaye doo arrêté doo nangam nangam waxal la loo xam ne inventé de toutes pièces parmentées mais pour yàqal la la. ci kaw wax yooyu. Euh, baaxul ci kaw wax yooyu ma euh, euh, gis nañu ni vraiment kenn seen jegeñaal di maître Clédor. waaw waaw booy Clédor suñu booy. affirmé wu il a dit la vérité bon loolu c'est son fort quand même je l'aime baatu empoisonnement dafa. non dafa bari léegi bon mën na si intoxication la. dañuy faral di wax loolu pour di yàq rek mais état bu doon imposer du la jàpp bu ñu nekkoon dans un état qui tue là on peut tuer tout qui on veut dans un état qui tue là mais je te dis madame nous sommes désolés tu peux tuer qui tu xanaa xamoon ne dans des états grands criminels yi ngay dégg mais bu ñu la bëggoon rey mën nañ la sax rey ci sa médecin bi ngay def mais mais mais un état imaginez un état qui veut tuer mais yéen vous connaissez pas ce que c'est qu'un état mais yaa ngi dawal oto ci goudron bi yaa ngi añ di reer di ndékki ngi dem hôpital yaa ngi lekk mais imaginez un bu yeewu suba teel ni tey Alioune Kandji il faut ñu rey ko yor sa poison ah mm. sama jabar war a dem marché war a jënd ganaar war a dem ci koñ bi jënd ay légumes mais sa a kër la ñuy rey benn fajar le Sénégal n'est pas un état criminel. mais est ce que jàppoon ni war na waroon na laaj contrôle ko ci ci. non na ko defal moom médecin yi. waaw euh, ah, bu demee day gis pathologie bi da Sénégal dafa am ce qu'on la dafa am les labola ils font de la biochimie. il y a ce qu'on appelle la chromatographie gis nga léegi médecine ak biologie dafa avancé gis nga les labola de toxicologie et autres même école police amoon na ko dafa am ay chromatographe à phase gazeuse et à couche mince gis nga lu di loo ci dugal mu génn substance bi ci nekk bu dee acide nitrique nga ko jox ak acide sulfurique ak nitrate ak loo ko jox cyanure loo joxe mu génne ko du bokk ak pathologie normale nga xam ne ay tumeur cancéreux lay doon wala euh, asthmatique wala diabète wala nangam la la science dafa évoluer moo tax yow bu amee benn affaire demal ci hôpital nga def boo defee rajo boo defee bi boo defee bilan rek da ngay def biologie rek ñu defal la prélèvement sanguin yi def ko génne la tout si ni génne sida bi dañ koy génne kératine yi dañ koy génne génne sa cholestérol génne la glycémie génne la tout les manques de calcium et tout xanaa xam ne si da ngay calcium sax say tànk di metti dina nga naan ñu ne la da dëgg gàllat mm. fekk calcium la boo ko waxoon tey nit da ko dama jënd mm. nga jënd calcium mu dañ waaw mm. tout ça ay problème la da gis ay nit am ay rétention hydrosote dañu ne lañ laa corte seeram di nuyu ñu ne danga ça s'appelle une rétention hydrosodée nga gis ñu dañ la corte fekk ndox si mais nag major nag ñoom fu ñu jaar ak nguur bu Sénégal ak yi nga a dal jàpp ni euh, peut-être mën nañu war xam nga quand tu attaques un rek euh, tu penses que l'état peut te mais si l'état veut tuer des gens je le jure du leen jàpp état bu la bëggoon tëj rey Mais le c'est un État criminel. Il ne faut pas c'est les gens qui parlent là. On va les amener en prison. Diap, gauche, doit jamais, madame. Nous diap. dañ lay Sénégal on a tellement de magal tellement de gàmmu ah sa ay xew day am nga lekk laax ñu imagine état bu la topp chaque matin def sa kaw fukki nit ñu essayé laa jox laax wala ndox wala sow yow tey man bu ma la bëggoon empoisonné mën naa la indil un donjon boo xam ne jantal booy oto yi ak xaalis bi ñëw léegi bu takk la rek mais nag bi ñu leen jàppee xaw na yàgg dafa mel ni tamit euh, yoon na gaaw waaw dañ leen arrangé moom nga ala Sow Madiagne waaw ñoom Cheikh la lépp mu jeex hmm. le jeune là aussi je l'ai dit qu'il est malade là Karim Gueye waaw je voudrais que ñu aidé ko bu mu wér hmm. euh, jàppale ko sax mu wér te ñoom it comme li ma la waxoon keroog il faut que les activistes aussi jël position rek pour askan bi comme les députés nañ jël position comme askan. lu jafe ngay wax nii de. waaw il faut ñu jël ko de nañ jël position pour askan bi xam nga carrément lay wax tout le monde nag mooy da ngay wax ay nguur ak ñëpp ci yem xam nga une carrière da nga koy sauvegarder ñii c'est des gosses qui ont du talent. Mm-hmm. bu ñu faree rek daanu li <laughs> ma la wax de bu ñu far ak Macky bu ñu far ak keneen dama leen di wax rek jàngal quoi. même les intellectuels dont tu par là ils n'ont qu'à faire attention gis nga retraité yéen a ngi vaar rek <laughs> ku ñëw ngeen vaar ko gis naa ne même ministre da ngeen leen di vaar et les polémiques continuent et ça te gis nga quand par parles d'une manière scientifique et intellectuelle et philosophique si vous voulez quoi nga nekk professeur de droit constitutionnaliste que tu sois un médecin soit un gendarme et quoi, que vous soyez même les activistes surtout il faut pas aller à la désuétude ce la désuétude da ngay wax ba sàppi nit da ngay wax loo xam ne du taxaw da dem ba du normalati. major naka nga gisee keroog euh, doxantu nemmeeku bu président Macky Sall euh, ci corniche bi mënee vers Guédiawaye. waaw état de lieu la tudd ñu ko dippee ab scénario nee nañ président scénario teg foofu. non dafa doon xool mu bëgg a xool. mooy boo ko waajooj naan troisième mandat président dañ ko bëgg ñu ne ab jege ñaari Racine Talla. non yooyu gars yi président bu ko recevoir ci photo yi sax yàggul. non mais gars yi loolu la ñuy def ay affaire di boole di def noonu peut-être dafa dégg ne président génn na ci corniche bi daw fekk ko fa parce que les sénégalais loolu la saa yu président génnee soo xasee ba jaar fi ñu président mi ngi ci beneen bi nga gis les politiciens les apôtres ñëpp ay mais Macky n'a pas besoin de ça vous savez il a des renseignements très ah, puissants mais pourquoi pas mais il a des renseignements euh, nous avons au Sénégal euh, des des services de renseignement on peut photographier et des vidéos mais il a vu voir de visu pour qu'il n'y ait aucune forme de complicité dans l'exécution des travaux. Parce que qu'en Afrique, euh, il faut que le contrôle n'explique pas euh, la confiance en Afrique. Il faut le faire. Et il faut parfois aller vivre ce que les vécus des citoyens. Gen l'insalubrité, euh, l'état des routes, euh, comment les populations déambulent la nuit le soir. Il, il, a la même envie d'entrer dans la nature comme un être humain normal. Parce que vous savez, les présidents de la République, ils mènent ce qu'on appelle une vie ordinantrope, comme le disait Roger Garodi. Vie, vie, c'est une vie ordinantrope. Une vie calculée, calée dans la le dans le euh, Mais euh, de sortir, de regarder les gens et de, de forcer. Parce que mon don barreau, de quoi il sort le sac, de quoi il sort le sac, qui est arabe. Là, il sort le démat gaïdan, attend et farcé. Mais farcé avec nous, Suleiman, à l'époque. Même nous, on le fait. Des fois, on a dit, j'ai su may wax ak jeune de Guinguinéo da sama pro sama professionnel yi mais je raccroche pas je demande même fan la jaari jaar ak la ñuy ah on en la besoin c'est comme ça c'est un président de la République il a besoin de sortir et de regarder et le contrôle n'exclut pas les travaux là il faut aller voir parce que les travaux là la saison des pluies les a trouvés ici. et il y a des problèmes. ça a été un plaisir recevoir la ma bàyyi la nga Major. voilà tàggatoo mooy li ma la xool sama waa ji ku ko fase da nga ko baara kan moom Macky Macky Sall ci troisième mandat. non bu li may wax du ma lu mu ci dugg naa ko ci jàppale. Mm. parce que man xam naa li may def te xam naa li jariñu réew mi. mais le conseil que je donne aux mm. Sénégalais. Mm. c'est de s'attarder sur les questions intellectuelles seen doom yi jàng liggéey yi toppatoo seen njaboot yi faju lekk naan gis nga ce qui se passe dans ce pays là on ne peut pas donner la promotion dans un état normal surtout africain il faut qu'on soit très vigilant en matière d'éducation pour régler problème historique parce que ki nga xam daf lay former sa doom yow ngay yaakaar sa doom tekki nekk magistrat wala sa doom tekki nekk médecin wala yooyu mais kooku boo ko corrompre da ngay am problème il faut les corrompre même à la limite ah ces gesteurs il faut qu'on les règle qu'on les gère pour pour ñu bañ a nous mettre de la pourriture dans l'intelligence de nos enfants. parce que bu xale yi hmm. mais est suñu mais c'est comme l'humanité qui s'effondre chez nous ah part de l'humanité imaginez des enfants qui doivent apprendre et les instituteurs vont en grève il faut qu'on règle définitivement dans ce pays. que que les ne partent plus en grève. am na solo voilà que cette année-là on veut ah, vraiment année scolaire bi. waaw instituteurs yi moom nañu nañ leen gérer seet na ñuy def ak ñoom même ñun parents d'élèves bu jar na sax ñu ko cotiser weeru day 1000 francs. am na solo ba ba lépp mat ñu fay en tout nga disponible lool. pour la chaîne saa yi lu ko sa jot maye rek nga ñëw. Mhm. donc ñu la ciy sant bu baax a baax. ndax mën nañ la nga titre def comme ñeneen ni ba di ñu jaay affaire de bi mais doo ko def. donc ñu lay remercier bu baax a baax di remercier également. yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo saa su nekk suñu ay programme di remercier la régie ci gunge beeg liggéey bu am solo bu ñu def ak euh, rédaction bu Sénégal 7 euh, administration bu Sénégal 7 ci ko ci suuf euh, di leen jox <coughs> dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro 13 minutes de vérité